Bienvenue sur Salam Vision. Yes, MC Kheur alias Sendiane lawbe ma yett yàlla almaruma ci noyyi salaam salaam salaam salaamualeykum gars yi gars yi bëggee bëggee bëggeeti faale dikkaat rek ci émission bi nga xamante ni moo di vision Galsen bu ne vision Galsen yéen ñu gën a xam tey li lëmbee gem bi lëmbee réew mi lëmbee àdduna bi jëmm ji na kenn dootu ko naatable ci miim réew kenn dootu ko naatable ci bitim réew euh, ay fan yi ci ginnaaw jotoon nañ fa def benn émission bu nice bu tuddoon vision Galsen kii mooy fighter rab bu ñu nee rab rap nag am na loo xamante ni dootuma ci débat dama koy bàyyi moom fighter rap mu dikkalaat ñu ci li nga xamante ni mooy ci lu bees li nga xamante ni jot na fee jaar loo xamante ni instant yi nii moo war yëngal àdduna temps yi nag moom coolu coolu coolu mujjën a jóg fan la cooyu jóge mooy yenn kaay yi fi jot am mooy lan ay axlu brique ngaa ko blende mais balaa boobu noonu dama koy bàyyi mu nuyoo fighter rap maa ngi lay siyaar ziar na la bro naka waar maa ngi nuyu waa Sénégal di nuyu waa West Africa di nuyu képp ki nga xam ne yaa ngi may seetaan di leen wax one love. fighter rap vision Galsen fighter rap jaaroon nañ fi ñu am ay bagages yu bari yoo xamante ne dañ teen nekkoon tegoon ci loo xamante ne lu ne fa nga tekkeen du ko jeex la mais fighter rap fi nga tegoo sa tànk ba léegi est-ce que ba léegi foofu nga tegaat sa tànk wala instant yi nii jéego yi gën na dox. woy man chaque jour rek damay damay gën di avancer quoi. man chaque jour jéego yi day di dox même sama label bi sax actuellement nii ñi ngi ci installation bi actuellement ñu ngi ci ñu ngi toll ci dernier réglage yi même sama euh, mixtape bi tamit maa ngi toll ci dernier réglage yi quoi maanaam man actuellement pare naa daal. instant yi daal pare nga quoi pour lëmbe instant yi nii maanaam label bi nga xamante ni gars moom laa leen defoon signe ne la woon carrément gars yi ma ngi ci biir label bi nga xamante ni moom la Fighter Rap fas yéene taxawal kon Fighter Rap mu ci na ko ba pare instant yi nii Fighter Rap mu ngi ci Miss TV Fighter Rap fi nekk Miss TV instant yi nii vitrine nii ak ponk nga xamante ni war jëflante ak ñoom instant yi nii fan la activités yi gën a tool waaw featuring yi actuellement def naa featuring ak Fatou def naa featuring ak Bakaña def naa featuring ak néew bi léegi nag euh, defe naa trois booy ñoo des ma war a def ak ñoom featuring muy ak bees Ngaaka Blindé Dip Doundou gis mais la moo tax nga taamu ci Ngaaka Blindé Dip Doundou Guiss te Albes moom tollatul fu gars yi toll quoi léegi nga bëgg koo jëm jël bëgg a def ak moom benn featuring wala léegi da ko bëgg a yokkaat ci beneen niveau wala léegi da nga ko bëgg a mayaat beneen niveau. no du loolu kàkkatar lu mu yéex yéex dina àgg fa mu jëm te bukki lu mu dina romb wër sa gëm. faaw gars yi bàyyi xel loolu te ak bees tamit daanaan la bindkat la quoi man dama ko sentir parce que dafa am benn euh, titre boo xam ne dafa tudd dafa war a génn bu tudd wasaare donc moom laa ci yëg ni war naa mën a def ak moom euh, featuring bi quoi. Fayetal rab lan moo tax mu déggoo olof. yee mbëkk la sa jig yëkk de saa jigul béy waaw man euh, magama yar quoi <laughs> liñ naan picc bi naaw du nga koy du ruus dëkk ba mu jëm soriwul man magama yar te en même daanaan la buunaa ma buunaa ma yar. ah te ndaw ko ndaa laay wuyoo kon donc ñu faaw ñu déggoolaf buñ déggoolaf ñu wax ak ñun coole coole coole coole rek ci Faye Rab la maa saa ma defee ak moom émission damay bég saa ma jàkkaarloo ak moom damay bég que saa moom mooy maanaam ci beneen niveau ci beneen high level laa koy fekk ci loo xamante ni luy gën a aju la xaw ma ne temps li mu nekkoon à Allemagne xam nga nekk ci bagage yooyu noonu est-ce que nekkul niveau bi mu jëlee foofu noonu moom la jël motelewaat ko ak li nekk fii affaire yi mu jaam doole clashante yi bari na ngaa ko blindé ak rubrique mais avant loolu noonu dafa am fa yee benn temps benn musique bu xawoon génn gaay naan eh, dafa taan ma foofu ma ne vum vum ne régime bi yokk yee xam nga Sénégal euh, dëkk la boo xam ne avancé fi yombul quoi xam nga tey jii ay fattal ma foofu buum buum ne régime bi yokk lan la mën a apporter public Sénégal lan la mën a Sénégal. mais gars ñu ngi def ay tendance. non xam nga Sénégal ñoo bëggul lu baax ba pare Sénégal public bi dañoo réer xamuñu fu ñuy taxaw xam nga euh, public bi mun naa ne tey jii xola euh, keppaar lañ ñoom foo leen sànni rek foofu lañ jëm maanaam ay xob lañ te xam nga man li ma lay wax rek man nee naa la wax baskil la bu génnee nga xam lu borom di peese man ak gaay yi duñu benn man a gaay yi bokkuñu man a gaay yi duñu mus a bokk. ci foofu noonu ma jëm si tuuti yow ak gaay yi bokk leen. yow ak gars yi bokk li ngeen di dund yéen ak gars yi bokk leen ci esprit mais ci kàllaama baatu olof bi nga xamante ni fighter rap bu la ko tekkilee rek nga xam ne carrément ci biir biir biiru olof sa diggante ak mag ñi ak ñi la mag ñi yare ba tax nga déggee noonu olof fighter rap naka def ba gëstu loolu. waaw parce que ñun euh, dañu dañu dañu dañu màgg nekk nekk lu ndaw xam nga ba pare rawatina man keppaaru pakoti laa la màggee xam nga keppaaru pakoti laa yeewoo. ba léegi maanaam ci keppaaru olof bi Fayital Rap ni mu def ba déggu olof Fayital Rap bu waxee kalaamu olofam rek nga xam ne Fayital Rap bi ku déggu olof la loolu lañ bëggoon nga teel ñu koo xam nga leeralal tuuti tuuti quoi balaa ñoo gën a xusi bi waaw xam nga tamit euh, ñun ñun dañoo màggee ci keppaaru pakoti yi xam nga yaroo ci keppaaru pakoti yi te xam nga nekkoon ku ci mel ne ay maire Toola Ndaw ay maire Faalo maire Fandaw ñooñu ku nekk ak ñoom faaw nga dégg olof xam nga fi ma waxee ñooñu laa nekkal xam nga di dégg seeni i wax ay wolof yoo xam dañ koy wax man ma koy jël di ci tarbiyu ndànk-ndànk ba pare tey yàlla dafa def man ak gars yi duñ a yam xam nga lu tax a yam. lu tax loolu. xam nga français dafa wax le savoir libère mais c'est pas pour rien te pour montrer l'importance du savoir alxuraan ñëw ne yastawi lazina yaxlamuuna wa lazina laa yaxlamuun ñi xam ak ñi xamul duñ mës a bokk moo tax man ak gars yi duñ mës a bokk te dama lay wax ni la euh, temps yi passé wayu boo yooyu ay vuum vuum vuum xam nga. xal ma foofu yooyu amul njëriñ mënul apporter Sénégal dara. mais gars yi léegi daf nañ ko tendance. no déggoo public Sénégal xamuñu fu ñu jëm public bi dañoo gëlëm foo leen jëm rek foofu la ñuy jëm. xam nga lan mooy apporter Sénégal tey jii bu la neexee man man ñaata teg si yor ñu man damay bëgg luy apporter Sénégal. non yow moom saako test yes loolu dafa leer am na benn sama benn texte bu ma naan kumba lu tilim sa biir say fóotal bu nangu ñëpp xam mbir mi gerte caaf la ko yeyul yaa ngi boo xam sa buumu say dog na rëcc way na tey ana mbokke la daa jay naan la ko màgg jaar ci ngone waxoon naa la Seydou Kerion ba heure ba la neex gome sa biir néeg daara da nga faa war a jàngee ba fu sa jëkkër gis ne waa jàngee bu lëndëm amuloon dina bëri lu feeñ guddi sutura waral ñu muur la guddi ba ngay dem nañ la day nañ la da ngay seey si da ngay seey si sa biir néeg yaay sàppali xorom si mujjee tëdd yow fajar teel boo bëggee njaboot gu barkeel kumba sa borom kër da nga koy jaamu lu res nga bàyyi ko ci loxo yàlla moo koy sàmm sa jëkkër fleur la yaa koy jëmbat ak a roose bul ko daw wërsëg luñ boole ko roose su ma la naree bokk suur la nan la ko jigéen mën a wax jëkkëram ki la jëlee kër ndey ak bàyyi delloo ko cëram boo bëggee ngërëm aw buru këram bul jël wurus def ko përëm sa jëkkër lu mu bëgg def ko ci ërëm si liggéeykaay ba mbaa ca këram jigéen këram sërëm sëyam jëkkëram yi ñeent lu mu ci dolli rek am ngërëm ñun lii la ñu soxla loo xam ne boo ko waxee doomu aadama yi déglu mën a jariñu Fayda Rap tuuti am na foo xamante ni man man personnel dama ciy ñëw tuuti quoi Fayda Rap Fayda Rap yow booy bind sound quoi yow naka la la sound bi di dikkee. yes parce que man nee naa la bu may bind trois heures du matin jëm kaw laay bind. parce que day fekk ñëpp tëdd yow sa xel kese moo ci des. dëkk bi dal ba pare vent xam nga vent yi day sànni te vent yi loolu muy sànni day day dara day ñëw sa bopp sax si si sens yi da nga koy mën a capturer. boo ko capturé léeg-léeg da ngay dem ba ba bind ko sax xeebaat ko leneen day ñëwaat quoi parce que heure boobu noonu vent yi day circu day day day day circuler xam nga fi nga xam heure boobu laay bind moo tax ma yor façon euh, écriture bu doy waar maa dàq bind Sénégal. mais fayta rap. da ngaa mën a bind macha allah fayta rap dafa dégg li nga xamante ni mu di langage yu tubaab ba mel ni du ko nàmp fayta rap déggu olof ba mel ni moom mosut a dégg luy tubaab mais fayta rap hip hop mm-hmm. léegi. Ngaaka Blindé ak lu birig yow eh, nga def ni instant yi nii gars yi seen coolu coolu ak seen bës nga def ni loolu instant yi nekkul dil quoi ak coolu yi gars mu nekk dil mun na a nekk euh, bu nee dil ci lay ci lay ci lay ci lay ci lay a mu nekk dil mu nekk projet boo xam teg nañ ko ba pare boo xoolee même ki leen di tourné qualité vidéo bi moom mooy tourné vidéo yëpp kon donc loolu lu ñu waxtaanee la quoi ñun public bi ñun public bi mun nañ bañ a comprendre parce que man nee naa la man un tera laa yor dégg nga dégg nga ma un tera maanaam sama bopp du fees te état d'esprit boo yaakaar rek man maa ngi moom fi gaay ba gaay di liggéey guddi fekk na yeewu naa bu yàgg. yaa ngi may dégg. Faye Barab ba Kër Massar ba Malika foo tourné léegi Faye Barab ngay dégg. Fayetal rab léegi instant guddi gi ñu toll lan lan loo xamante ni da ko génnee instant yi boobu waa secteur bopp yëpp gëm ko téegoo ne Fayetal rab fi mu nekk nii mooy suñu pakoti lan nga jëflante gars yi ba tax fi mu nekk nii lu waaye wax ñu ne Fayetal rab mooy suñu pakoti xam nga marchandise mooy jaay boppam te lu ne si xool feeñ si jëf avant tout dama lay tontu ba pare ci ci Ngaaka Blindé ak euh, lu Brick man dama leen wax ne leen bu ñu bu ñu tilimal suñu game bi bu ñu salteel suñu game bi parce que ñun dafa am jur yoo xam ne ñoom dañ ñuy déglu yaa ngi dégg te fonk wéyjur gaa laaj foo mën a jëm la tey ji game bi yóbbu nañ ko beneen côté saagante ndey xam nga tey ji nit euh, mun nga ko xamal mais nga wax ci moom mais bu dugg ci vie privée wéyjuram mun nga rab te doo saaga kenn ah loolu la ñu war a def mais nañ kalaasante mais nañ bàyyi saaga yi. est que ne ko léegi bëgg bës ak bëgg ay vie bëgg ni ñi dégg leen moo war a ñuy dagalante ay saaga ndey noonu ci biir game. yes mun na nekk mais na xam nga. man man buzz bu ma taxee si ba bëgg bu ma taxee siw man saaga du saagaay tax gars yi di ma xam man damay liggéey lu tax gars yi di ma xam yaa ngi dégg man bu fekkee saaga moo ma nar a siiwal yàlla bu ma kenn xam man damay ñëw imposer li ma moom imposer sama bind imposer sama écriture imposer samay tactique samay technique nga déglu ma bëgg ma ci far force parce que loolu marchandise mooy jaay boppam te xam nga rab danga koy mën maa nga bakko comme ni ko Paco di doon waxee rek man ci cadre boobu laa nekk te nee naa leen man maay jël mission bi jël drapeau bi eggali mission bi maay soldat bi war a eggali mission bi donc moom la woon tey fii la ko yàlla yemale tey man maa jël drapeau bi jël mission bi fas yéene ko wëyal. tey ji yow da nga nekkoon ak Pacoti. yàgg na nga nekkoon ak Pacoti jaar foo xamante ni fu bari la bu nit ñi xamul sa diggante ak Pacoti. Pacoti yàlla na ko yàlla yëram yàlla na ko yàlla suñu borom xare àjjana firdawsi ak mboolem mi jullit. xam nga mais yow ci instant yi nga xamante ne Pakoti dem na yow tey ji yow nga desaat fi tey jii tukki woon ñibbisiwaat taxawal label bu mag fa seen taxaw ngir lëmbeewaat réew mi tey ji tànk yi nga xamante ne Pakoti jëloon na ko fa teg ko fa instant yi nii est-ce que pare nga fi nekk pour te drapeau boobu ngir drapeau boobu bañ a daanu. yes du daanu du daanu xam nga tax yàlla def na tey ji tey ji staff bi nga xam ne ñoo ko yoroon tey ji ñoo ma yor muy ñoom Abdul ñoom Max. Jibril Tafa Ndiaye tey ji quatre ñooñ ñoo ma wër kon donc moo tax ma taxaw ne man kenn du ma téye ndax pare naa quoi te xam nga ku ne ci yoon kenn du ko kenn du ko téye di wax ahlu birik di dund gis nañu bàyyi yenn yi clashante saaga ndey yi amul njëriñ quoi parce que ëllëg dañ fiy jóge seeni doom xam nga te image ju dañ tey ji loo fi def lu nekk rek bis dina ñëw dinañ ko tegal say doom te xam nga euh, bu dee ngaaka sax man peut-être ñàngam mun na am soriwul quoi parce que duma ma dégg ay texte mu ci wax ay alxuraan wala dara te du ma mu koy wax mais bu dee waa ahlu birik yéen ay taalibe bàyyi ngeen xam nga jàng ngeen tax maa ngi dégg seen i quelques textes ngeen ci wax ay ay ay ay alxuraan donc ñoom laay waxal ne leen ni taalibe bàyyi ngeen bàyyi xamul lu ñaaw bàyyi leen saagante yi bàyyi leen clashante bi ngeen wax lu apporteel euh, Sénégal parce que ñun public bi loolu la ñu soxla guddiñ nii public bi réer nañ xamuñ fu ñuy féete kon indi leen ay thème ay actualité ngeen yedd gars yi yée leen ñi xam fu ñuy taxawee quoi parce que tamit saaga fajul dara ba pare beneen bis topp tamit ëllëg boo demee ba nga xam ne yaa ngi toll ci sukuraat yàlla dina lay tegal say résumé ngay gis xam nga dafa ñaaw nga dem ba toll ci dee ñi lay tegal ay saaga yoo xam ne yaa ko daa def nga gis ko mu leer ne après li si mooy dee kon donc loolu dafa jar a bàyyi xel ndax yàlla moo ni iqra kitaabaka kafa bi nafsikal yawma alayka xasiba nee na nit ku mënti doon diir bi ngay doon majeur doon mu kalaf doon responsable saayit ba keroog ngay génn addina téere bi boo defee lu baax ñu ko ci bind boo defee lu bon ñu ko ci bind dañ lay jox téere rek ne la jàngal yaay xisaab sa bopp boo ko defee di nga gis say ba say jaar-jaar gis say say bàkkaar gis yi nga def yëpp ba sottal léegi di nga xam fa nga jëm kon donc loolu dafa jar a bàyyi xel quoi nañ bàyyi saagante yi ñun ñëpp ay doomu ndey lañ ñun ñëpp ay doomu bàyyi lañ donc man su ma neexoon tey jii sama projet bi du ma wax dama ci invité Ngaaka du ma wax dama ciy invité ay ñeneen a ñeneen mais du question boobu man maay xool lu nga xam ne sama album wala sama mixtape lii laa lii la ma mën a apporter parce que man dama pare pour def international parewu ma pour yem euh, Sénégal donc parce que comme maa ngi dem ak ñëw te en même am na expérience ci mbir mi am naa connaissance bi kon donc dama bëgg euh, def un peu partout war réew yëpp en même def loo xam ne bu génnee rek ñëpp dañ ciy barde ndax léegi damay rap anglais damay rap allemand te loolu yombul. fighter rap am na ñuy commenté suuf nee nañ fighter rap bi léegi dafa moom mission ñoo doon yaa ostaas ci biir game bi pour yedd gars yi moo ko tax a ñëw ci biir hip yee mais dafa am bu amee lu gën a ñor yàlla wax ma. bu am gisuma ko de yàlla wax ma gisuma ko waaw kon mi ngoo kon donc man su may wax nii donc dama leen wax ñoom pour ñu bàyyi xel quoi parce que seeni doom dañuy màggee ëllëg quoi man kenn dàqu ma clash man clash naa leen ñoom ñëpp ah. def naa son classe ñëpp mais damay clash mais du ma saaga waaw ñoom ñëpp laa clash bàyyiwuma kenn ay Omzo Drar ay ay ay Dip Doundou Guiss ay Ngaaka Blindé ay koo xalaat ku ne. mais mais mais attends mais mais Omzo yaa ngi koy mayaat kot parce que Omzo gars yi kenn déggatoo ko kenn xamatul fu mu ne mais yaa ngi koy yëkkatiwaat de. waaw xam nga man su ma def su ma xësee bay bay bay bay laal man du ma laal comme ñi nga xam ne rek ñoo siiw man ñëpp laay laal ñëpp laay clash parce que ñoom ñoo tàmm clashante maa wan leen te ji man maa leen gën a teng. alias Baye Cheikh alias Bandimite kenn déggatu ko woon gas dafa dafa jékki mel ni lu xaw falaat tuuti mais dafa am gaa yoo xamante ne instant dañoo ñëw taxaw ci digg bopp Gaston ne Gaston comme que léegi mag la màgget na Gaston day dem toog ne mais Fayda Rab baa gaa yooyu di fi jëlee Gaston baa yow bokkuloo ci gaa yooyu. gaa yooyu ñu fee jëlee Gaston sax parce que état d'esprit yi bokkul bind bi bokkul gaa gas Gaston moo leen gën a ñëw xalima fop bokkuñu. man déggoo man su may méngale sama bopp ci game bi guddi toll nii Gaston rek laa fiy méngale Gaston laa fiy méngaleel sama bopp mais du keneen bu fekkee bind booy binduñu ko yaakaar ni mi ngi bind fii gars yi binduñu te xam nga game bi dañoo soxla bind lañ soxla actuellement Pacoté lu taxawoon tey ji gars yi faawoon ko gars yi bëggoon ko muy bu bindee rek ñëpp dañ dañuy kontaan ci moom man trophée bi ma am 2013 Top Awards 2013 te nit dof mu jon ko jël yëngu leen man si trophée laa am te pourtant début bi ay trent cinq groupes la ñu woon ñiy éliminé di éliminé ba mu des dix dix yooyu man si laa bokk ba pare ñi dem yënguleen ma jël troisième seen biir te ay dadi bib sonn ñoo ci nekkoon ay Fata ay Simo nit dof fukkenku crisicul ay ponkal lekk ci nekkoon si la ngaa ko beleen de doon defoon son sax waaye ñu ci ñun ñëpp man ngaa ko waaye na ma macha allah dégg naa merci beaucoup kon donc ñun ñun ñun ay underschool lañ ñi nga xam ne li ñuy def ñun xam nañ ko gëm nañ ko mën nañ ko ba pare xam nañ fi ñu teg suñu bët fighter rap li des ci game bi mais fighter rap dafa am artistes yoo xamante ni maanaam buñ ne a top ci hip hop ñoom dañ cee bokk muy ñi nga xamante ni mooy waa Alioune Zik Alioune Zik fan yi ñu ngi commencé génn di am loo xam ne dañ koy waajal mais saa yu nii nii nii fighter rap est-ce que pare na fi mu nekk nii pour waaw pour pour pour jéem a jaar ak waa Alioune Zik fas yéene def ak ñoom featuring ngir hip hop Galsen fas seenee jëm kanam. waaw bu ko bu ko laajee rek incha allah dinaa ko def mais actuellement daal ñi ma suivre daal ñi nga xam ne tey teg naa leen bët ne ñooñu la bëgg defa def ak featuring moom ah dinaa def ñoom featuring. mais Faye dafa mel da ngaa daa mel da ngaa xeeb waa Alioune Zip. non xeebu ma leen non du ma parce que ku néewal sa bopp rek borom bi tuutal la te ku yëkkati sa bopp rek borom bi wàcceel la non man xeebu ma du ma xeeb doomu aadama parce que ni ngay see ni dama respecté ni xola même bu sama artistes yi nga xam ne ñu ngi dëkk sama koñ sax laa ba ci booy bi nga xam ne moom sama sama sama sama lonkoo la yaa ngi dégg moom sama waay la kooku sax xeeb ma ko dama ko jox cër dama ko respect muy serveur moom sama waay la sama sama sama sama copain la. ba pare maa ngi war a def featuring man ak booy jaaxas la yi comme ni ma la ko waxoon dinaa def ak featuring jaaxas la dinaa def ak featuring Demba Gisee ñooñu daal man sentir naa leen te incha allah dinaa def ak ñoom featuring. dafa am benn gal boo xamante ne dafa nekk fii benn gal bu mën bandi bandilu gal boo xamante ni gal bu xaw a kii la quoi gal bu xaw a suuf tuuti quoi si sa fa sa digganteeg si sa fa fitrin bi fan la ci toll fan la gars yi toll ah Sistapha Sistapha waxaguñ waxaguñ te maag moom waxaguñ te. waaw ah, mais waaw ah, mais mais xa ah, ah ah waaw mais saa yi saa yi waree léegi saa yi nii seen niveau léegi dafa xeeb Sistapha wala ñu fa demee noonu. non Sistapha du ma ko xeeb xam nga tamit Sistapha yi tamit bëri nañ ah bëri nañ de. dégg naa dégg mënu ma la wax ban Sistapha nga may wax actuellement. mais Sistapha mel bi nga xamante ni temps moo tëggoon fi nga xamante ni mu di parcel ah ok waaw kooku xam naa ko moom sama sama sama sama sama xarit la oui mais nag actuellement xam nga tamit euh, booy def projet. da ngay xool ñi nga xam ne jii yëg nga leen ci rek nga def ak ñoom euh, lii quoi mais peut-être maa ngi moom dinañ def benn affaire nag quoi. Fighter Rap moom ak benn boy bu ñu naan Sampa Peuzzi Sampa Peuzzi musique gu Sampa Peuzzi yow maanaam fitrine yaag Samba Peuzzi yow est-ce que musique Samba Peuzzi yow am na fu la mën a yóbbu ci hip hop gaz. xam nga tey ji musique Samba Peuzzi tey ji xam nga musique la ñuy wax musique ku nekk da ngay def la nga la la nga sentir quoi parce que kenn ku nekk yaa dugg studio yaa fay sa xaalis kenn kenn fayaloo kon man donc man du ma du ma du ma leen critique du ma leen blâmer mais man man man musique am man apporté lu ma dara. man musique am mënuma yóbbu fenn. musique Samba Peuzzi mënu ko apporter dara ci côté de niveau bi la wala ci côté de musique bi nga xamante ne léegi boo yàq nañ waaw merci beaucoup noon la demee quoi côté musical bi amatul njëriñ quoi xam nga 32 style 32 musical 32 style waaw rëmb tëmb tëmb la ñuy def ñoom ñëpp kenn wax fi lu am fayda kenn. fayda rab may nga ne lan lan la ñuy def. rëmb tëmb tëmb lañ fi da nekkee. kenn wax fi lu am njëriñ fi lu am njëriñ ñoom ñëpp dañuy sóob xam nga li ñu soxla mooy bind. wala booy classe tamit nga classe lu lu lu tegu comme comme comme nga ñëw ne euh, benn instant boo xam nga man bu may def clash damay damay indi son boo xam ne tay jii bu ma ko tegee tey boo ko dégloo danga xam ne kii clash na mais bind boo xam ne tey jii amul benn njariñ da nga ciy saagay papay nit xam nga am dama xam dafa ñaaw quoi boo nee ba naan papay diw mi ngi na nefere xam nga dafa dafa doy waar ko man loolu ku ma ko wax sa kër laa lay fekk. man ku ma wax bu la ko waa axlu bi rek waxoon bu buñ ma ko waxoon ma dagg paas de mbuur fekk leen seen kër man faaw ma def kirim kon man kenn du ma def man sama wéyjur kenn du ko saaga man du ma respecté samay wéyjur moo tax du ma saaga kenn dinaa rab na clash am naa droit clash mais duma ma du ma du ma du ma saaga kenn waaye kenn du ma saaga. mais clash ak saaga dafa bokk ci pam gaay non xam nga am na yoo xam ne bif la xam nga am na yoo xam ne tooñ la quoi yaa ngi dégg man bëgguma koy tooñ parce que euh, tooñ. lëndëm la keroog yowmal xiyaam quoi kon donc tooñ baaxul man duma tooñ mun nga clash nag bu la neexee clash ci hip hop la bokk bu la neexee nga éco trip yaa ngi dégg mais bañuñu loolu mais liñ liñ bañ mooy ngay saaga papay jàmbur wala ngay saaga yaayu jàmbur am na yoo xam ne dafa ñaaw ci hip hop bi dañ ko fee war a jëlee dañ ko fee war a pousser parce que am na yoo xam ne dafa ñaaw. Fayta Rap ñu ngi jëm décembre. Fayta Rap lan la fas yéene tegal waa Thiaroye waa Yëmbal waa Pikine ak waa Kër janvier bi incha allah dinaa teg euh, big concert son et lumière en même indi sono bu doy waar doy waar jooni xam nga ñi neexal yëmbal kalaata yëmbal teg benn affaire bu doy waar quoi. Fighter rap ku dangereux ngi nii Fighter rap ku xam hip hop a ngi nii Fighter rap ku mën rap a ngi nii Fighter rap gars nag man nag maa ngi nii damay dem sama yoon. nee naa leen saa yu ma ñëwee maa ngi duggaat ci biir label bi nga xamante ni mooy labelu Fighter Rap Fighter Rap sa dernière question Fighter sa dernière mot sa dernière vitrine yi nga xamante ni moom nga fas yéene jëm mais Fighter Rap mais boobu noonu li nga koy tëjee tey mooy freestyle boo xamante ni day tàng jër ngeen ma sénatul nag comme ni ma leen ngay waxee à fois maa ngi ci biir label bi nga xamante ne Fighter taxawal na ko ngir fas yéene see jàppale gars yi Allemagne la jógee de indi bagage yu tàng jër jër jër jër ngaak dib euh, dib moom da ngaa ruux da ngaa ruux da ngaa ruux sa digganteeg ngaaka blende da ngaa ruux sa digganteeg ak lu birig nag dib am yoo xam ne nag man du ma ca détail xam nga li ma xam naa li ma lay wax kon nag am na yoo xamante ne dootuma ci détail Father Rab bàyyi naa la fi maa ngi sa biir label comme que nag sa label yi da ngay sa label bi di làqatoog di jël man ma damaa sob ci biir laay dugal loqati gars far fos gars yi ma séenu maa ngi ci biir label bi ah. Father Rab freestyle nga wan gars yi ne leen taxawal nga label bees man nag dem naa sama yoon bu ma kenn séenati. yee wusaab wusaab Caaroy Yëmbal wusaab Kër Massar Medina yee samay seleng masque la amul tomb damay teg nday son yi explosion yi bomb taal bu yanj boo gis boroom ak xambu man ak yéen du lambu ay naw maay self yéen ñëpp a lambu cuune nga dema raxasu paaka bi nga yor ñawul saytaane ci laxasu you know never king bi man la maay def buzz maa def fokkin all niggas ndayu mbili man la ndap loo sukkul munoo ci fot yaag sa nday ci pot rab du japot boo mënul ñëwal ma tàggat le teg la ci kot e fayta rap for real rap koy mën maa nga bako di béggee Baara Njaay di béggee waa kër gi yëpp di béggee Mama Awa di béggee Awa Ndaw sama sister di bëggee Ngoone Ndaw di bëggee Jayna di bëggee Jibidaas Vieux Diassi Khady Sarr bàyyiwuma kenn di bëggee képp nga xam ne yaa ngi may seetaan di la wax one love di bëggee gaa yëpp daal di bëggee laay bu killa di bëggee waa Camp Pro parce que ñoom it dañuy def lu nice di bëggee waa Tampico yi nga xam ne ñooy samay sponsor concert bu mën a def ñoom ñooy ñëw teg jëmmal bés bi indi ay boisson lu ne joxe sa say ndax yeeg yooyu tasaare ko xam nga ba nga xam ni public yëppay naan xam nga ba pare ñu ñëwaat yëmbal sama koñ ñëppay naan affaire dañuy xëy ba lendemain sax dafay des kon donc maman Catalina maa ngi lay wax one love maman maa ngi lay bëggee bu baax a baax di la wax aw ma sa fay di bëggee Libaas Ndaw di bëggee Cheikh Ngiraan di bëggee Aline Ngiraan di bëggee Cheikh Ndaw di bëggee Gora Gaye di bëggee waa Birane di bëggee Alassane Birane di bëggee waa Allemagne ñëpp ah di leen wax bàyyi leen ma xel maa ngi ñëwaat léegi yàggul dara jaajëf one love Ibrahim big up man rek ngeen di waatee sama brain ngeen di watee seen cokki xam-xam ngir mën a xalaat seeni jëf ngeen koy xalaat rappeurs yi man lan ragal may jël suma baaraam dugal seen taat yëngal xar-xarub taat baaka amu cap yoon fépp bu koy di ma xàcc baaka dóor la goon bak bak bum bum damay damay damay pëndal nday géem bi def ni barok yaa jaam bi kuy ragal naga làqu maa ngi ci géew bi damay bàkku munoo saxaar bëgg a tàkk li ngay def maa la ko dàq man musique